Bonjour et bienvenue à tous et à tous et à tous qui nous regardent actuellement sur la première chaîne de télévision Kaulak TV la première chaîne de télévision de proximité à Kaulak où que vous soyez jàpp Nita ni tamit am nu comme nous ko sommes suba tel gu jot di retrouver ci seen matinal mat show comme nous koy defee altinek archemes 10h30 12h30 waxtaan ak faram un lépp loo xam ne aju na ci actualité bii réew ak biti réew tey daanu am mbégte dalal ay ñaari ndaanaan yoo xam ne ni que artistes auteurs compositeurs ñu di wax ak i tamit lan lañuy def dans le mouvement du pop galsen wala mbalaxmaan tay nañ len jox le véritable mbalax qui va parler au Thioukel bien sûr conseil des ministres ni ki démb amal nañu ko ci euh, muy conseil ministre bu ñëk ci gouvernement euh, Amadou Ba premier ministre euh, bu Sénégal démb nag gën na caa fës Ismaïla Madior Fall Macky Sall président de la République du Sénégal xatit na ben euh, niko jox na ko instru instruction c'est bien ça le mot ne ko lu aju ci kalim wàllum Karim wadd ak Khalifa Ababacar Sall seen amnistie lu gën a gaaw ngir ñu jot seeni euh, loi mën a fal mën a fale ci réew mi loolu tam doon na ay ponk yoo xam ne tey bërëbu tasukaay ci euh, xibaar yu bari xëy nañ ko fasal ci seen xët wu njëkk Bougane Gueye Dany moom nag la mu ca xam la mu ca wax mooy bu mu nekk daal amnistie boo xam ne dañ koy calculer maanaam ñu teg ko ci wàllum politique bu amee jaaduwul loolu la Bougane Gueye Dany xam Mimi Touré ni ki démb ña nga ko daan wax daal dinay officialiser ne génn na ci coalition benn Bokk Yaakaar bind na ab leetar jébbal ko président assemblée nationale di Mame Diop président de la république Macky Sall ni ki démb tamit xam na ne ni chauffeur si rikk waay daw leen ndànk ñaar fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci ñaari fan képp ci kaw tali bi hmm? ministre bi yor wàllum transport demoon na démb ca diwaan bu Tambacounda la ko waral mooy jébbal njaalam bokk ak ñi nga xam ne ñoom ne askan wi tiis wi nga xam ne am na ci accident bu méttee métti bi am ci Tambacounda Kousanaar ba mu ca noppee tamit xamle na ni faw nag ñu amal conseil ministériel bu ko defee tamit dem beeg bi ñu càmbar ko xoolaat ko ba euh, kenn ku ne mën ci gis sa bopp booy tukki doo ci am benn jafe-jafe ak lënt-lënt marche pacifique la waa coalition euh, citoyen le peuple dàmbooj ak i ñooñam di amal ngir la libération des détenus politiques détenus politiques yooyu nag bokk na ci Abdou Karim Xurum Xaq ki nga xam ne moom Cheikh Omar Diagne ñu tege loxo ci génnuk aduna imam Alioune Badara ndaw amon na ay kàddu ñu ci né état bee ko ak yoyu ak yenen ak yenen yo xam ne wax nañu ko président de la même euh, président de la république Macky Sall nee yi tamit faw mu def tournée économique bo nopi tam conseil des ministres bi nga xam chaque jour dañ koy défé ci palais de la république jël na dogal ni danañ ko def ci yenn ci raison loolu lañu tubab tubaab naan conseil des ministres délocalisé waxtaan wi dañ ci euh, feggoo ak ki nga xam ne moom mooy euh, Nabouja moom itam dinañu defal benn découverte ci kanam tuuti ak sunuy partenaire kenn ci ñoom la ñuy jël wane ko xamal xamalante ñoom kii moom tey taxaw seetlu kese la fi nekkee xool ñëw gis namoon nañu ko lool géjoon nañu ko gis ci kanam tuuti itam nañ leen présenté ñaari artistes yoo xam ne ils sont pétri de temps connus sur la toile aimés sur la toile respectés adulés à travers le monde laataa ma leen di bàyyi ñu nuyoo ñu yëral leen li gën a fës ci euh, bërëbu tasukaayu xabaar yi bu fekkee yemb na wala ma nuyu gaañ yi c'est bien Nabou Jah ñu ngi lay nuyu. Babacar maa lay fay. très bien. ni nga def moom tey moom fi nga génn dama neex moom. ah c'est bien ça merci ragaloo de. sañse rafle kon baax na yéen si ah. jaamu baax maa leen di nuyu ñëpp Oumy na moo ne trop j'espère que lépp jaamu. mi mhm. tolloo baax. bu baax sax voilà bële mooy sa caméra très bien xool ko. maa ngi nuyu di leen bëggee di leen bëggee di nuyu Baye Mor nag sama caméraman fan yëpp moom laa xal heure bu ma xëyee moom laay nuyu Babacar Sarr di la <laughs> nuyu yow tamit di nuyu tey nag dama leen demaloon Saloum portable ci kanam tuuti ok ma indi li ma leen li ma leen fa jëleel bëccëg leen taaw bi incha allah xam nga léegi xale yi da nga leen di yónni mais duñ la wax effectivement fan la ñu demoon <laughs> da nga leen di yónni droite ñu jaar ñu jaar gauche mais en attendant dañ ci ci kanam di nuyu téléspectateurs ñuy sétane suñu fidèle téléspectateurs bari nañu ci Kaolack et merci beaucoup ñu ngi dégg message yeeg soutien yeeg yëpp jërë ngeen jëf euh sama xarit bi mu tudd sax Oumy ñu ngi lay nuyu. Babacar ma ngi lay fay. namon na la. man moom namuma la won ah. man mom namu namuma la woon Babacar. namo da. dama la namu rek namu tamit du force. ah ouais. wa mi ngi non naka tanki ça va alhamdoulillah feebaru mak la yoron quand même fepay metti feebaru ya mak boko yore efe fépp ay quand même mais legui tane nga bu baax. wa est moom ça va alhamdulilah. et eh, namoon nañ la bu baax a baax. Eh, maa leen raw nak ah wa ya raw gañi mais man xamna très bien. ani yaay ak mam ak nijaay ak tante ak yu ñëpp a def. ñu ngi sante yalla bu baax. très bien. Ya. Babacar nuy na la. sista nabuza ma ngi lay nuy di nuyu mbokk yee xarit yi safo di sétane sen émission Mat Show di len wax ne amati ak contentement bu baax baax. nek fi sen plateau match namon na len torom nak xamna ci kanam tuuti dinañ gëna yaata ci kanam tuuti dina bokk ak ñun waxtaan wi ak gan yi nga xamne war nañ ko am ci kanam ak lu ñuy waajal ci Kaolack lan lañu nar loolu yëpp bokk na ci ponk yoo xam ne ni daan ci waxtaan ci kanam tuuti ñu euh, dem dal di len di yëral li gëna fess fës bërebu bërëbu tasukaayu xabar yi l'absence de Boura Mandour situation oblige ñu ko kook euh, journal bi euh, di ñu jël libération yene kay libération yenekay dal daal dinay dikk euh, fësal ci xët ni c'est euh, l'hécatombe après cinq accidents de la circulation juromi accident de la circulation taxna na ñaar fukki nit ñak sen bakan ci kaw bi ci dural ñaari fan kep lool le journal bi diñu euh, faram fatiel muni 18 décès la am la enregistré ci mardi bi jappal mu à hauteur de Bandia juroom ñaari nit ñak nañ sen bakan ci diganté ak Malem ak kusanar neuf personnes ñàkk nañu seen bakkan muy juróom-ñeenti nit ñaar ñi ay xale lañu ay seeni at toll ci benn at ba ñeenti at ca Daara Jolof yi tamit benn nit ñàkk nañ seen bakkan fii ci Kaolack dégg ngeen ko accident bi nga xam ne démb wax nañu ko muy ci Kaolack yi tamit benn accident am nañu ko fii le changement euh, démb benn camion yi tamit daanu ci kaw taxi ci Grand Mbao loolu tamit bokk def na bilan bu tiis muy 70 morts dans 231 accidents ak Kaolack entre janvier et septembre 2022 70 morts dans 231 accidents entre janvier et septembre 2022 mu lis le journal bi wax dit libération bokk ci euh, journal bi njiital réew mi ni ki wax na ko ci conseil des ministres chauffeur ci Rick waay daw leen ndànk réew mi quotidien ñu dem ci benen journal réew mi quotidien Macky n'a plus le choix xamatul fu muy tek tankam jëmale ci li nga xamé ni que mom moy euh, choix am Karim Wade ak Khalifa ababakar Sall njiital réew mi Macky Sall xam na fu muy teg tànkam waaw am déet bokk na ci réew mi quotidien la mu xëy fasal ci xat wu njëkk ñu bel jël beneen journal du 24 heures chrono Macky lance la fin de sa dualité avec Sonko Mongok ngoog mu ngi ci xët wu njëkk euh, di 24 heures Maki lance la fin de la de sa dualité entre Ousmane Sonko ndax bu ande Khalifa Ababakar Sall wat Karim Wade ci langu politique gi dina andil jafe-jafe Ousmane Sonko loolu moo taxit Yene bi euh, fësal ni Maki lance la fin de sa dualité avec Sonko ci wi nonu ngeen di euh, madame Aminata Touré Mimi ni ki demi nak am lettre bo xamné mom moy dakal dakkal bokkam ci coalition Benno Bokk non à une amnistie calculée mooy kàdduk Gaydani, Gueye d'ani ngi ci souf euh, page 7 bu euh, Bidi vingt di 24 heures yéenekaay ñu jël benen journal bo xamné que ñu ko dan l'observateur yéenekaay réhabilitation des deux cas Khalifa ak Karim Maki le coup de poker Non, la ko xët wu l'observateur yéen kaay di les conséquences d'une décision prise en conseil des ministres lii Macky Sall jël nii dina euh, jox instruction Ismaïla Madior Fall ministre de la justice dina ami jafe-jafe ëllëgam ci nguur politique gi euh, doon na loo xam ne nii tamit laaj la bu sampu ci euh, yéenekaay bi di l'Observateur Vox Populi Amnesty Macky veut ramener Karim et Khalifa dans le jeu danañu delluwaat si langu politique gi ñoom ñaar ñi li nga xam ni que bokkuñ woon santé woon nañ ci seen politique bi depuis 2019 euh, ci élection présidentielle yi élection municipale ak législative ken gisu leen tamit dañu wat ci langue politique bi forum civil ñom nee la décision bi Macky Sall lu ñuy rafetlu la ndaxte ñii nag jot na ñu bokk ci ñiy fal ak ñi ñu war a fal ci réew mi euh, beneen yéenekaay di Walf Quotidien présidentielle 2024 Macky ouvre la voie à Karim et Khalifa Sall lii itam bokk na ci xët wu njëkk yéenekaay bi di Walf Quotidien yoon la am yoonut 187 écoles yi tamit ñu ngi ci biir ndox mi élèves yi war nañu delluwaat ci classe yi le 6 octobre enseignants ngi ñoom i tamit war a dem jàngale ji le 3 octobre loolu moom mooy firndeel nii école tijji na ba noppi Les échos Yenekaï, amnistie euh, pour des personnes ayant perdu leur droit de vote. Maki réhabilite Khalifa Sal et Karim Wad. lii nag mom moy ngénte gu ci gouvernement bi euh, photo bu njëkk yi tamit mu ngi ci xët wu Les Échos yéenekaay Aba Aba Mbaye mom nee décision bi décision bu ñu euh, rafetlu la te décision bo xamné ne dara nag lalu ko lu politique Nafi Diallo mom mi nga xamné mo yor jokkalante kaddu ci kay bi di Les eco mom nag xam na ni Karim wad soxlawul njëggal kenn du ko jëggal dañuy teggat procès bi Setal ko ndaxte fi ci rew mi fi la dëkk bayam fi la fekk bax bax fekk ko fi Ibrahima baxu mom neena president Sall veut éviter la bipolarisation du champ politique la dualité Macky Sonko loolu dafay ñëwaat ci kay bi di Les eco ah, Pape Ibou Sané politologue la Ousmane Sonko risque d'être le plus grand perdant boo moywul nag dellu suwaat Karim Wade ak Khalifa Sall boo moytuwul Ousmane Sonko njiital Pastef moo ciy gën a loru du samay kàddu politologue bi moo ni waxee ci euh, yéenekaay bii di Les Échos enquête yéenekaay ñu jël beneen xët divisé pour mieux régner ñuul na kukk moom njiital réew mi Macky Sall ci bile ëttu yéenekaay ndax Euh, fay diviser gagne pour togat jël place am jël gana am a à l'aise laaj bu samp ci euh, kay bi di enquête le quotidien Amnesty annoncé de Khalifa et Karim Macky la guerre des trois ñett lañu Khalifa babacar Sall Karim wad Khalifa ak ki nga xam mom euh, Karim Wade ak Ousmane Sonko ñett ñi lan mo wara a nekk seen ci politique bi je de dupe non la ko Sud Quotidien xey fësal ci xatu présidentiel 2024 amné reprise des tournées économiques des conseils des ministres délocalisés Joko ak Macky ndax lim li lu mu calculer ba nopi euh, bokku na ci euh, yene kay bi di les économies ñu jaxale ko sunu yene kay yu ci bari tay loolu la ñu ci seen politique bi gën na ja fës waye mu euh, espoir de ci nous ñu fàttali sunu mbokk lutteur yi jàpp itam contre Gris Bordeaux les juróomi fan la ci février 2023 Ama en danger danger la am danger, Ama mu ngi ci formam déet laaj la bu shampoo, ci kay bi di sunu lamb gërëm leen li gën a fës ci tënk ci ëttu taskatu xabar yi pour camper le décor ñu dem ak sunu rubrique découverte ak Nabouja salon portable avec l'appui de la région. ñëpp daal di ci téléphone yu bax téléphone yu wóor téléphone yu ànd ak qualité waye tamit téléphone yo xamantene lepp lo ci joko day wóor Saloum portable di fierté Saloum salumi nak ay doomu Saloum ñoo fa nekk ñu indi innovation yu doy war waye tamit innové lepp lo xamantene dafa jëm ci walu ka jaayum portable Saloum portable oui mesdames messieurs yeen Saloum salumi lay wax consommé local lañu wax Saloum portable toujours pour le bien-être des Saloum Saloum spécialiste de la vente des téléphones original techno Samsung ah oui Samsung yu wóor itel rawatina iPhone yu bo wa Saloum portable lu ngeen ñu namal hey Saloum portable ma ne léegi téléphone petit na way xolal ma xalé bi ni muy sine rek ci téléphone yi ko Saloum portable jaay bo bëggee iPhone 7 plus wala 8 plus X max yu tok amna fa 11 12 ba 13 ci Saloum portable jongoma ma yango xalé yi bu ñu la reer sëkk jigéen taamu nake sakkar yàlla buy mayax-mayaxi sa biir hey Saloum portable yéenay number one 78 271 59 59 78 271 59 59 Saloum portable ci rue Caniveau de Gaulle ci biir marché central bu Kaolack Saloum portable ñëpp ko xam ci yéwén Saloum Saloum yeewu di ñëw actualité euh, bi nga xam ne i tamit fës na clashante ci artistes yi dañ ci nañ ci xuus waaye tamit am na lu ñuy waajal ci diwaan bu Kaolack Nabou Jah Saloum portable lan moo fa am voilà Babacar comme ni ko écran bi waxee ni ko wanee du moins ko wanee bi ma leen demalee ci li ngeen ma yónni woon mhm. comme à chaque fois da ngay wax ne du may dem yónent damaa bañ yónent ah mais tey moom dama laa demal Saloum portable Saloum portable mu ngi nekk euh, Kaniwo Dégol en face taxi Médina yi ñuy taxaw boo fa demee accessoire téléphone la ñuy jaay téléphone et tout lépp a ngi fa. Mhm. loo soxla ci téléphone iPhone Tecno Itel euh, lépp mu ngi foofu ci biir kenn amatul problème mu téléphone wala problème mu écran ni mhm. chargeur ni écouteur loo soxla mu ngi ci biir. très boo demee di nga fa fekk accueil bu doy waar boo xamante ne sama xale jigéen yi yaa ngi yooyu dañu lay teg ci code ndax boo fa demee sa sax day seet ndax xàmmeetuñ ku yor 1000 francs wala ku yor 100000. Mhm. dinañ la toppatoo comme ni mu waree. li nga bëgg ñu wan la ko teg la ci code ba nga am li nga bëgg te doo sonn Saalum portable nag Babacar soo fa bëggee dem da ngay jël seen numéro nga woo leen ci 78 271 59 59. du ñu échanger nag dañuy jaay téléphone. bu hmm. bees mais du ñu échanger. ñi nga xam bëgg nañ dugalante quand même. duñ ko def. ok te boo leen ooyee ci numéro bi dañ la teg ci axe ba nga axe foofu wala ñu expliquer la ba nga comprendre li nga bëgg a xam lépp. très bien incha allah bërëb la boo xam ne mi ngi ci diwaan bu kaw Kaolack di jëfanteek euh, saalum saalum yu baax marque originale boo bëgg ci bépp euh, marque yi gën a glam yi gën a chic yi gën a tendance boo leen demee fi nga xam ne que moom mooy saalum portable mi ngi ci Kaliwo déggool bërëb la boo xam ne dañuy jaay lépp lu jëm ci wàllum accessoire waaye tamit di la jox ay téléphone euh, ci marque boo bëgg marque yi gën a tendance donc dem leen foofu.

kii ngeen di gis moom mooy Fallou Galas jeune artiste la hyper talentueux hyper cool ci beneen facette ci beneen style karaw gi bari na lu tax lii style <laughs> mais lii moom du dara faal isil la rek quoi. rek te incha allahu rabbi du yàgg dinañ dinañ defaat euh, leneen parce que ay artistes nañ dañ lay dóor <laughs> non saa su ne dañuy dañuy def loo xamante ne ni wala dañuy bëgg a def loo xam ne Kaolack euh, dañuy xam ne seen artiste bi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dem ci kanam quoi. Mhm. waaw seen seen seen artiste bi mu ngi dem ci kanam loolu rek la may du leneen.

parce que ñom ñi nga xamanteni ni ñom lañuy tour yoy yooyu jël diñu tek ñep ñëpp ñu ngi projet ci musique def nañ ci lo xamanteni ni nii tey jii Sénégal ku jug rek di nga xamni ne ñooñu liggéey nañ ci waaw après tamit garaawul. Hmm. pour les bi moom saa su ne rek dañuy bëgg di def lo xamanteni ni bon bo gisé ni nit koku la d'accord mais suñu xalaatu bop dañuy def lo xamanteni ni nii. Euh, comme artistes yëpp ni ñuy créer seeni affaire hmm. voilà papa buñ bu copier ci lu muy wax dañu ñëw ci yow. <laughs> garde ton maam Diarra Fam moo ne woon garde ton mal en silence boo <laughs> souffrir en silence mais ñun duñu souffrir en silence léegi man damay faral di dégg Kaolack da fay copier ci Ndongolo li ko wax léegi da fay copier ci wali balago sec qu'est-ce qui fait la particularité de Fallou waaw xam nga comme comme comme comme ni Sénégalais yi di waxé wala ni wa waa Kaolack di waxé man tey jii nii laata may dugg ci musique mm-hmm. euh, xam na ne mel naa ni may ni may mel parce que yàlla dafa dogal dama ci ci. dama bëgg waaw. jaar naa fi ma war a jaar woy naa ay cant woy naa ay xasaayit mu yóbbu ma fu nekk mais souvent doomu aadama destin yi kenn mënu ci dara. Mm-hmm. man bi may bi may bi may dama xëy xëy rek mbir yi ñëw xaw ma xaw ma nan la ñëwee ci man. mënoo koy expliquer. waaw xanaa wax jaar ni mu ni mu demee rek parce que dama dem euh, sën. Mm-hmm. doon am ku ma doon awu.

boobu jo moo nekkoon moo yoroon sën jo téema ci bunt bi ne ma dama bëgg le 13 décembre nga joué fi soirée ma ne ko non man duma ma woykatu c'était ma ne ko man du ma woykatu yooyu de man ay ay ay diine laay woy ay cant mu ne ma non dama bëgg nga essayer rek après Cheikh baay ma koy nuyu moom tamit Cheikh baay Ndiaye mm-hmm. moment boobu mu ngi fa ma daal di ñu jàpp le 13 décembre ma répété xam nga affaire joué. Mhm. comme yàlla suñu borom dafa dogal woy nekk ci ñun ñu dem joué bi le joué mu doon guichet fermé journée, ne ma dama contrat Je contrat. un la. contrat jours ma joué ben euh, vendredi ou ben mercredi Je d'accord A commencé à chaque fois que soirée guichet fermé à chaque fois après ñu bàyyi suñu xel que ni nag. Mhm. yàlla moom day maye mbir. nekk am na luy nelaw ci yow te xamoo. voilà yàlla day maye mbir ñu ñu moment boobu ñu def benn single. Mhm. ñu def benn single. Mhm. single bi neex après ñu ñu ñu ñu xam na nag musique am nañ ci place après ñu commencé koo defee ba pare loolu noonu tax ñu ñu ñu ñu mbappat nag lépp loo xamante ne te nit da koy woy ci musique rek. ñu bëgg ko woy. ñuy dem di dem di dem ba benn moment ma jàngat ne Kaolack bëri na ay artistes yoo xamante ne dañu fi nekk mais di woy ba màgget te amuñu dara après man ma ñëw changer boobu noonu. Mm-hmm. war ne Kaolack mën na war nañ fi mën a jógee dem jouer grand théâtre retourné waat waaw am gëm-gëm boobu nag te loolu moo nekk ci man loolu moo nekk ci man damay dem di dakaar te yàlla dogal na ne fi ma war a jaar jaar naa fa ci mbappat mm-hmm. fu ma taxaw way dinañ ma déglu. ma taxawooy dinañ ma déglu ma koy gërëmee grand yi nga xam ne ñoom laa fi fekk. léegi loolu lan moo la ko may. waaw xam nga àdduna nag moom bu weesoo yar bi ñu lay yar sa kër yow boo boo xamali ko tuuti rek danga nga war a jéem a yar sa bopp ngir nga mën a def ak ku mu mën a doon ci àdduna sa comme ni ma koy waxee dañuy dem Dakar ci ay studio di dugal mais dañuy dem ba dañ lay rus parce que ni ngay doxe ak ñoom moo tax. sa man fépp fu may enregistré moo xam label la fu ma mën doon damay fay sa bëgguma suba wax wala bëgguma suba lenn lo xamante ni bokkul ak li ma li def mhm. voilà très bien euh mo may fallu Galas fallu Galas artiste auteur compositeur ñaari ndaanaan la ñu desante té ñoo tassé tey ci plateau bi amna nak nag lu ñuy waajal ci Kaolack lan la lu nar nan lañ ko wara a defee loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam touti ak sunuy euh, peut être mun naa tey ay chroniqueur la ñuy doon wala ñuy def ay analyse ñu nekk ci showbiz bi Papa Melo. waaw léegi j'ai une question quoi tellement banale. Mm-hmm. kan mooy Papa Melo. Papa Melo benn jeune Saloum Saloum la rappeur musicien musique lay def rek mm-hmm. dëkk fii Kaolack juddoo kabatoo ki fii màggee fa yaroo fa tamit quoi. Mm-hmm. Euh, après dem Dakar. mbapat yi foofu jàng moo ñu yóbboon dakaar ñu dem dakaar jàng ba pare aar woowaat ñu donte commencé woon nañ ko depuis 2013 mais dañ ko posoon ndax jàng ndax études yeeg yooyu noonu continuer suñu étude nekk si ba pare 2019 rek laa ñëw nekk sama carrière solo nekk diggante Dakar mm, ak Saly quoi. 2017 2019. ok ñu ngi suñ 3 ans de carrière solo actuellement quoi. trois ans. waaw waay ñetti at. carrière solo. waaw waay. booy nee nañ doo Kaolack waa de. Kaolack waa cent pour cent la non deux cent pour cent la yow sax. yi Ivoirien la may gën Papa Melo moom mooy gën waa yow ah sama doom kooku mooy kan ah nee nañ ma Kaolack waa la. Kaolack waa deux cent pour cent la sax. ah ci maam ba ci nijaay. je suis de Kabatoki. Kabatoki gii. Kabatoki bii laa dëkk. très bien. Euh, bi nga tàmbali li ñu laaj Fallou Galas léegi lan lay delloo question boobu jébbal la ko. Mm-hmm. affaire bi musique nu mu dikkee sa bopp. musique moom mun naa ne dañu see yar rek dañoo am suñuy grand frère ñu nekk suñu koñ en ñoom ñoo ñu doon dajale sa ngoon jënd ay album ay kër gi crew di ñu tegal ñuy déglu ay Gaston loolu moo ñu def ay rappeur def si ñun musique mais nag ñoom ñëpp dañ doon rap man rek maa si njëkk musique. mën naa ne Kabato gi man maa fa njëkk a def musique quoi. musique yaa ko def musique ak grand yooyu nag ndax ñoom ñoo ko def si ñun. donte dina am loo xam ne yàlla dina ko def si yow benn particularité boo xam ne ni da ngay ñëw rek teg tuuti rek mu réussir te loolu moo ñu may tey fu ñu agsi actuellement quoi. Euh, kan kan moo la wax woyal am nga talent. <laughs> ci nga ko déggee nii rek comme Fallou yow am nga talent rek woy wala loo jàng la ba xam. Euh, mun naa ne jàng nañ si tuuti rek. tuuti waaye li nekk si yow day nekk si yow rek te il suffit que lenn lu ndaw yee ko rek day yeewu te bu yeewu day yeewu ba faw kon yeewu ba faw yow xam nga nu mu demee. léegi booy de nee nañ ko fi nga daan <laughs> <laughs> sax. Ah, tàmbalee gu te xam nga te xam nga riir riir nañ ci kaw nag. riir nañ si ndakaaru yow xam nga nu mu demee ak saleeg yëpp ñu ngi def suñuy événement yoo xam ne ñun ñoo ko instauré suñu bopp Dakar waaye di ñu si fekk si Kaolack waaye di ñu si fekk si waa Mbour Saly yëpp di ñu su fekk si ak ñeneen ak ñeneen quoi. Mhm. mais tàmbalee guñu ñu tàmbalee di nga gën a dégg. mais gën nga fës côté Saly ak town Dakar DK. waaw lan lan lan nga def ba gagné foofu terrain bi. ah mais est-ce que ñoo dañoo nekk njàmbaar si lu ñuy def rek mooy li ma la wax rek Sénégal dafa bëgg jàmbaar ku gëm boppam ku xam li muy def xam li mu bëgg xam fan la war a jublu ko te ñu gars yi ku ñu fekk si ku ne dina xam ne ñun ci fulla ak fayda la ñu nekk ci gëm lañu nekk la ñu nekk ci ñoo xam ne ni tamit ñu bëgg la ñuy def lañ quoi te buñ la te Sénégalais bu la séenee si loolu rek mm, di maanaam tuuti effort rek ñu ànd ak yow quoi. Mm-hmm. style bi. Mm. ci kan style bi. Fallou nee na moom moom même bu ñu ko waxul sax mbedd mi gars yi dañ naan fa ah kii dafa doon ndongolo kii moom isul bala ko Seck lay solo mais yow ci kan ngay copier. non ñun moom boo xoolee même suñuy commentaire boo duggee YouTube ak TikTok foo mën a dëgg ñun suñu suñu suñu style suñu style bokkul. Papa Melo sama woy sama solo sama événement sa bokkul ak événement nit yow xam nga nu mu demee. Mhm. Euh, suñu yëfu bopp la indi. te mun naa ne sant yàlla loolu moo ñu indi tey fi ñu indi tey quoi. Mhm. fi ñu fi ñu toll nii tey loolu moo ñu ko may. ah lan moo la différencier ak fi nekk lan nga ak ñoom. que maay Papa Melo. ah mais c'est mais c'est yaay Papa Melo. Ah, moo la différencier ak gars yi. ah bien sûr damaa nekk ki ma nekk rek. mënuma wax ki ma ne exactement lii la ma yàlla def lii laa nangu quoi te li ma wone looloo feeñ. est-ce que dëgg-dëgg talent bi mi ngi fi. <laughs> li li li waa Mbour di jàppal jonge Tambacounda Ziguinchor Papa Melo par rapport ak liste bi créativité bi est-ce que dëgg-dëgg mi ngi fii ah yaakaar nañ ne mi ngi fii de ñun waxuñ ko nit yaa ko wax foog naa maa yow def nañu émission nit yi ñoo waaw ah, nit yi nit yi ñoo ko wax man waxuma ko quoi damay bàyyi nit yi di suñu talent rek mais ñun xam nañ ne xam nañ la ñuy def quoi te tamit bëgg nañ ko xam nga doon xam euh, li nga doon tax nga doon li nga doon. ci kanam tuuti nañ xam kii moom mooy kan. Euh, Fallou Galass. waaw musique Kaolack noo ko jàngatee. dans sa globalité. waaw kaw bala Fallou Galass di wax musique Kaolack ko jaa ni ko jàngatee damaa am lu ah. bëgg a laaj. Ah, loo xamante ne daf ma xaw a jaaxal. mooy lan le fait que mu doon jàng ay xasaayit retourné waat ci musique bi. ok daf la ko daf ma yéem ak nan la ko. ndax ñëpp duñu nangu. nan la ko rek quand même boo jugee ci diine bi dem ci musique mhm. dina am ñu bëri ñoo xamante ne dinañ am lu ñuy teg si ginnaaw mhm. ak yow nan nan nga ko réussir waaw loolu moom comme ni nga ko waxee noonu la demee mooy ñii dinañ nangu ñii duñu nangu mhm. te yàlla dogal na comme sama papa li ma daan wax loolu moo nekk ci man mooy saa su ne lépp looy def na nga fexe ba raw ci euh, Kaolack bu ñu daan bu ñu daan jàng xasaay wala ñuy woy woy cant dañ may xaar parce que marqué naa fa sama empreinte mais comme comme comme ni ma ko waxee dafa des fois damay dem am benn programme moo xam ngénte la euh, wala leneen la. Mm-hmm. taxaw di ko woy fi ma taxaw di ko woy damay fàttaliku que ni fii mës naa fi taxaw di woy cant mais tey jii nii ku mu loolu jarul muy yéem kenn. Mm-hmm. parce que galas li muy def. da ko doon ci ay maamam man sama yàlla dogal na géwél laa sama maam yëpp ay woykat lañ waaw tey des fois tam bi ma ciy door a dugg nag c'est si woon na trop. Mm-hmm. na ko dundee. waa des fois nit koo xamante ni dalaa bëgg ndax woy cant yi woo la. wala mm. su ma sañoon xam nga nangam ak nangam ak nangam mais boobu fi man fi ma nekk ak fi ñu nekk. bokkul ñu foofu. voilà mm-hmm. bokkul après ma comprendre leen nag. kuma ci wax dama lay wax na la d'accord fay jar mom suñu samedi bi sax cant amna ma dem après suma démé ñi nga xamante ni ñoo jité affaire yi dinaan noo comme kii woykatu musique la duñ ko jox ndekete bobu ñom ñu ngi may kontaan lo te bàyyi wuñ ci xel parce que tay ji nii bu féké dama dama dama bëgg sama fans bi ma bëgg tax ma ñëw euh, ma ñëw nga xagn ma daf may kontaan lo parce que sama fans bobu moom automatiquement day mer mer le ma acte bi nga def. Hmm. bu ko defee moom dina ma fekk si ci li ma nekk. après nag ñuy dem muy xaw a duré tuuti ñuy dem muy xaw a duré ba ci suñu waa kër comprendre ñu ko woon. Mm-hmm. suñu waa kër. Euh, ñoom bi nga bi nga defee choix boobu naka lañ ko dëkkoo. waaw wax sama yaay des fois su ma ñëwee tëdd. sonn naajee yeewu mu woo ma mu ñëw mu mu mu expliquer. Mm-hmm. wax parce que sama yaay moom yàlla dogal na daf ma bëgg. Euh, suñu waa kër dañ ko koy wax dañ naan ko galas yaa ko yàq yaa tax mu lu neex lu ko neex lay def bu ko defee mu xamal ma ne ma nit ñëpp bàyyi nañ ma ak moom mais musique yàlla nattu na ma ci bëgg naa ko trop mm-hmm. bëgg ci dem foo xamante ne nii dina dina dina romb njortu ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ne fii laa bëgg a dem mm-hmm. mais daf ci am beneen affaire boo xamante ni dafa nekk ci sama xol mooy dama juddu fekk suñu waa kër amuñu Euh, ma xam ne ñun dogal ci ñun. dañu mm-hmm. bien vrai que sama papa yor nañu ñeewuñ kenn demuñu ñaani lenn mais jàpp naa ne man je war a sama ngir suñu situation bu ñu mën a ma ci situation bi de sépp bëgg high level voilà loolu loolu nekk ci man nag jàpp su mooy tax ma ma am loolu. kon mhm. bu subaa ñu ne artiste bi bàyyi na aar bi léegi mu ngi ci bale mbedd mi donte musique mu ngi ci man. très bien voilà loolu loolu loolu. loolu mhm. euh, euh, nga ma ma laaj ko Fallou man lu ma bëggoon xam moo nekk ne Fallou en tant que Fallou yow à musique bi Fallou lan lay def exactement wala fàllu moom Fallou dafa nekk benn Fallou boo xam ne musicien kese la day dem am fu programme joué yi et tout ça après toog xaaraat leneen wala Fallou day liggéey en même temps nekk Fallou. beneen nekk si yeneen activité yoo xamante ni bokkut ak musique mhm. waaw musique bi moo ci gën a fës aussi moo ci ëpp doole parce que mooy mooy mooy tax ñu ñu lépp lu ñu lu ñu ñu bëgg ñu am ko mais Fallou mën naa ñëw trop beneen bi ci des mooy ñu ngi ak suñu ay mag yoo xam ne ñu ngi Turquie ñuy business ak ak ñoom bon mais bu musique bu soxlaa nag bi affaire yooyu yëpp dañuy xaar. Mhm. voilà. Euh, musique gu Kaolack naka nga ko jàngatee dans sa globalité. wa man sama sama sama sama comme ni ma koy waxee chaque jour rek. tey jii nii bëri na mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi lan la mo wara tonk tontu. mais allez-y. c'est parce que ñun ñëpp ñoo bokk. ñun ñëpp ñoo bokk gis-gis bi ñu am ci musique gu Kaolack. <laughs> très bien. c'est-à-dire Kaolack uh-huh. dañuy dañuy dañuy utiliser musique no xamante ni du non <coughs> dama tuuti trop nak ci diko wax. dedet ku reey nga ci. parce que ci dara nak wa parce que xam nga xam nga kaolak mhm. deg deg yi ñi am ak wax bi ngay wax du doon ben mhm. man suma démé Dakar damay damay fuma tok damay rétane parce que yalla non la mëna tok suma rétane dañ may wax limay yow sa buñu kaolak yi dama te yalla dogal na lolu daf ma neex très bien des fois nga gis ñu né amna ay produits yo xamné day dindi bañu kaolak genre mais man ni ma ni ma yàlla bindee nii neex na ma. Mm-hmm. waaw <laughs> sama sama sama bëñu Kaolack yi dama ci fier trop. très bien. te yàlla dogal na duma complex man dakaar su ma demee fi nit ñi di toog ñu daax a sañ fi ñuy toog su ma fa toogee ñu bàyyi ma xel. Mm-hmm. parce que yàlla def na loolu noonu. ci léegi su ma waxee sama xalaat est-ce que gars yi duñ ma mere. Ah, ayca bisimilah. artiste Kaolack yi moom bokk nga ci ñi fi dàq sañ. <laughs> non xam nga tey jii nii. Kaolack Kaolack dañu dañu dañu am ñoo xam ne. Kaolack dañu am ñoo xamante ni war nañu mën a jàpp ci musique bi vite fait booy yi génn. ok mais loolu amul. Mm-hmm. loolu amul des fois nga gis ko da nga war a tourner benn clip nga gis ko la may benn cent cinquante mille. Euh, wala nga gis ko la jox benn cinquante mille. pour sa tournage du clip ñu ngi ciy jàpp mais. niñ ko war a jàppee dëgg-dëgg dafa des. Ah. parce que Kaolack gis nañ que ne ñun Kaolack musique Kaolack dafa des ginnaaw en fait. Mhm. parce que tey boo nekkee artiste nekk Kaolack nit ñi duñ la remarquer en cent pour cent. Mhm. ñoom ñoom juma di man sax man je préfère man ma déglu benn euh, daju wala ma déglu benn artiste boo xamante ni mi ngi Dakar. plutôt mhm. que di déglu artiste yi nekk Kaolack. su ma la gisee mun naa la sous-estimer tu vois naan ah, artiste yu ndaw yu genre affaire yooyu te alors que yéen.

ak ni ko Kaolack di utiliser sax du bokkul parce que xam nga yàlla moo ñu nattoo loolu. saa sama xel mi ñëwuma kaa wax sax waaye. doy na waar <laughs> gis nga tey jii nii boo toogee ci télé di wax wala nga am émission feneen ak télé bu mu mën a doon. Kaolack mhm. TV laa toog fi lay ah, jël exemple. Euh, dañu lay sikk. Mhm. parce que xam lu tax ñu lay sikk da ngay wax li fi nekk te nit ku ñuul yàlla daf ci natt ñoo xam ne soo waxee dëgg rek dañ lay mere. so dañ lay des fois da ngay gis euh, promoteurs yi dañuy jëlé artiste fu sori. Mm-hmm. fay ko par exemple 3 millions ne la dama bëgg nga ñëw jouer ma playback d'accord nga Papa Milo sama grand la quoi comme comme demain, na grand il y événement bi euh, jox rek yaa ngi xool lu rafet ak sa grand la. Mhm. ak Kaolack gi ngeen bokk ak Kaolack gi ngeen bokk. très bien. soo soo mun na la d' accord yëkkati benn vingt cinq mille jox la ne la ba nga joué ba pare boo joué ba pare mun nga ko gis comme mun nga ko bañ a gisaat. kon loolu euh, te bu nit jugee Dakar dañ lay accueillir dalal la may la xaalis. Mhm. dugal na ci voilà te yow boo leen bëggee sax seet yi pour tegal la seen say projet. dalay jafe. dëgg la. te ñi nga xamante ne nii dañ leen di tudd ci kawle yëpp moo xam ay promoteur lañ moo xam ñu am doole lañ war ci mën a jàpp. Mhm. Euh, am nañ seen numéro am ngeen seen numéro. te xam nañ fi ñu fan lañ la war a fekk. fan lañ war a jaar. Mhm. ba jàppale la. waaye man nag yàlla dimbale na ma ba son yi may def yëpp man maay produire sama bopp. Mhm. xaaruma kenn parce que Olof Ndiaye dafay wax lu am solo. yoon yoon bi yoon yoon bi ñu nekk nii euh, waxta kii yee ci am soññe. noonu mm-hmm. baat boobu la mën a utiliser. Ah xam naa soññee ci am mais amul xaare. Mm-hmm. amul xaare. absolument waaw def nañ ay single yoo xamante ne nii bon ñu ngi ci tournage yu clip yi. incha allah dinañ ci par rapport ak euh, production bi. Mm-hmm. papa euh, li Fallou wax par rapport ak musique Kaolack dans sa globalité. fii mooy sa base fii mooy suñu base fii mooy base bu peut ñu bari ñuy seetaan actuellement. naka nga ko jàngatee. est-ce que li Fallou wax am na loo ciy rejeté wala am na loo ci mën a dëggal. non si waaw mën naa ne kaw Kaolack dafa des sax. Uh-huh. dafa des bu baax a baax a par rapport xoolal rek ñun suñu événement man déjà maa ngi nii soog a ñemee def événement Kaolack. Kaolack. Mm-hmm. te damay jouer Dakar Almadi. Mm-hmm. ñoom si la ñuy gën a préféré quitter Kaolack pour ñëw fekk si mu ma Almadi <laughs> wala ñu fekk si ma Saly. mais tey boo organisé Kaolack maanaam problème mu musique Kaolack. du musicien yi mais pop mais public bi la quoi. Mhm, public problème bi foofu la. Mhm. man nag mun naa ne artistes yi tamit man ñoom laay lance appel quoi du du promoteur yi du dara comme ni ko Galas waxee maa moom foofu la ñuy kiiyee tuuti quoi. Mhm, mun naa ne artistes yi maanaam waa artistes yi buñ buñ bu ñu xamee seen bopp xam seen valeur xam ñooy kan xam si lu ñuy nekk xam dëgg-dëgg ñoom si li ñuy yëngu nii dañ see war a tekki ñun musique dañ koy def pour tekki. absolument. dañuy businessman ñun dañu job kan mo koy def pour delu ci ginaaw do jouer pour kenn gratuitement mhm. papa melo kenn ko woon ko kay jouer gratuitement kenn sañu ko sax kenn ko def parce que mbind mi dafa metti quand même ba ñun dañuy liggé comme taxi taximan buy xëy ci taxi am la wala légui nan expliquer téléspectateur yi quoi naka ngeen di liggé pour ñi nga xam dañu japp né artiste bi da ngay ñëw rek taxaw rek eh, way way mu jeex naka ngeen di liggé suñu liggé dafa métti liggéeyu xel dafa métti liggéeyu bop yow yaay toog yaay xalaat yaay bind yaay composé yaay répété yaay dem studio yaay fay sa xaalis. Mm-hmm. ñun tey kenn kenn fayaluñu suñuy sound. Mm-hmm. signé wuñ si benn label wala keneen ak keneen ak keneen defaguñu ko. ñun lépp suñu son son yi ngay gis yëpp ñun ñooy fay suñuy clip vidéo ñun ñooy fay suñu xaalis mais après concert nga bëgg a dem gratuitement man je le fais jamais du ko def te maa ngi lancé artiste Kaolack waaye bu ko kenn def buñ la wooyee si

bari na bari na du ma si du ma mën a wax lépp mais quoi. Mhm. mais le boo xoolee yenn concert yu bëri du ma joué. oui parce que xam nañ ne Papa Melo kase nga koy fay. parce que damay def samay événement man sama événement yëpp entrée xam nga lu mu ne. ah oui lu mu tuutee tuuti cinq mille junni mosuma mosuma def événement bu gën a néew junni. gars ñu ngi lay jëw da bëgg xaalis. voilà pour muy <laughs> sa waay man dama bëgg xaalis. da ngaa bëgg xaalis. <laughs> te waaye dama mën a ut xaalis. ñaanewuma kenn. ñun liggéey rek la ñuy def. ni amee fit nag booy bi. <laughs> dañuy liggéey. Mm-hmm. au mu ñu naan Dakar sax boo koy jaay faaw nga am fulla quoi. absolument ci fulla boobu ci fayda boobu la nit yi di fekk si pour jox la gëdd bi war ci li nga ne. Mm, artistes yi man loolu rek laa leen di wax ñoom ñëpp ñoom mën nañ li ñuy def xam nañ li ñuy def waaye nañ ko teg si yoon rek. Mm-hmm. man ak sama moroomu artistes yëpp nañ ko teg si yoon bu ñu kenn jël si benn événement boo xam ne nii. événement yaa ngi fayeeku ñëpp ngi ñëw di dugg di dagg ticket ngay ñëw di jouer foofu gratuitement di waaj dem ñibbi lijjanti sax yow loo reere mhm. est-ce que est-ce que jël Gris Star événement am ñu ne Pape Melo tey mooy Gris Star bi kaw est-ce que mos na am ñu defal la proposition bi. Mm, non non mosuma nekk Gris Star Kaolack xanaa benn yoon Safirullah c'était ak kan ak. Euh, mooy foog naa final la woon xaw ma final la xaw ma final VAK la woon xaw ma lan la woon daal xaw ma lu xewoon daal mais jour boobu ñu ngi jox Miss yi trophée. ok Serigne bu moo ko organisé woon buntu buntu buntu Kër de Ville ma jógee Dakar ñëw joué après retourné. retourné man maa fa joué woon comme artiste quest daal. ok sa carrière solo naka nga fas yéene defee Kaolack andi lu bees. waaw ah, ñun moom suñu style moom la ma lay wax sànq rek style bu particulier la ñu yor quoi suñu yëfu bopp la ñuy indi. Mm, du Kaolack du pour ko ay kese mm, pour sénégalais yëpp la quoi li ñuy def bëgg nañ nag mu njëkk a neex Kaolack waaye quoi mhm. mais duñ leen force tamit pour mu neex leen par la force quoi. bëgg nga Saly de loo fa gis. Saly actuellement falaa falaa nekk falaa dëkk sax laay mën a wax actuellement quoi falaa nekk falaa nekk di joob di xas di def lépp mais xam nga à la base ñun ñun Kaolack la ñu bëgg moom la ñu xam. Mhm. te fu ñu reetaane fu ñu signé nañ xam fii la ñu bëgg ñun bu ñu sañoon bu ñuy def événement bu gën a mag si planète bi tamit digg kaw Kaolack lay doon. léegi léegi américains yi sax fekk ñu si. très bien léegi je vous laisse. nga mm-hmm. posé ma Galas benn question lan nga ko bëgg a laaj. en tant Galas. Mm-hmm. waaw moom dama ko bëgg a laajte rek exactement ban gis-gis la war a mën a euh, teg pour musique bi changer exactement. Kaolack pour ñu am public boo am doole ko allez-y waaw comme comme comme ni mu ko laajee rek. noonu laa ci tonto quoi. musique bi comme comme ni may dundee. Mhm. comme ni may dundee man presque toog naa. concert Wally Seck bi booy boo mënee jox galas lu mu ci sañse woon mooy bu mu sañsee rek booy doon ko kii noonu xoolal ma ko Kaolack c'était c'était la bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa ak euh, promotrice bi fàtt naa bi reer na ba xam naa mu ngi seetaan euh, comme ni may dundee mhm. daf ko wax léegi ci ci ci biir waxam euh, boo boo boo na nga toog bul yor cent franc. Mhm. gedd kase wu cent mille bi wala gedd kase wu cinquante mille bi Kaolack mën na bëri ay ay ay ay programme yoo xam ne duma ci joué parce que man euh, comme ni ma ko waxee léegi rek. Mhm. su fekkoon bale mbedd bi mooy tax ma am lu ma yóbbul sama yaay dama koy def. très kon ak te aussi succès amul solo. succès. Mhm. amul solo.

ne ma mënoo fee woy loo xam ne woyuma ko. Mhm. mais say woy lañ gën a bëgg que ni samay woy. at mu nekk ak biddiw ba cay fenk. cest dire damay toog muñ ngir am li ma bëgg. pour pour pour gëj naa jouer soirée. yow mii lu tax loolu galas. waaw parce que comme ni dëkk bi di doxee euh, dañuy jël benn affaire. Mhm. te aussi ma ci ma ci may jéggulu sax ci baat bi may wax nii. Mhm. di ci di ci baalu àq ñëpp. men, euh, dama bëgg damay damay ñaan sax lay wax ñu moytu yaq réputation nit du man du man hmm. parce que amulo ce produit fex ñongal ko defar ko bam baax hmm. parce que tay ji ni Kaolack TV so gennon nan TV baaxul nit ñi dañ lay reetaan hmm. parce que Kaolack TV mëno fe nek di tedd wala mëno fe nek tay nit ñi di la seetaan di di la di la di la xam ci Kaolack TV nga ne da nga yàq Kaolack TV. Mhm. mënuloo am sa artiste mu takkal mu takk sa drapeau. ci ndiggam fu mhm. nekk mu ko fay yóbbu. nga xëy un jour ne kii nii la mel wala kële nii la mel. yàqante man kenn waxuma dara parce que nekkul ne sama bopp lay défendre. Hmm. may sama moroomu artistes yi ci yeneen yi lay défendre. Kaolack xam ne ñun ñoom ñoo tax ñuy sonn bu ñuy woy ñoom ñoo tax bu ñu bëggee tey dem fu soree sore ñoom ñoo tax. Hmm. waa bu ñu bu ñu par exemple bu ñu jëlee Sifa teg ci kaw. Ah wala ñu jël Ali Mboup teg ci kaw wala ñu jël Akassa teg ci kaw Kaolack lañ teg ci kaw. Mhm. xam nga euh, ñu ñu ñu ñu bu ñu defee loolu li ñu bëgg dinañ am parce que tey jii nii Kaolack man bi ma juddoo ak léegi. Mhm. xàmmee ak léegi dugg ci aar ak léegi mosuma fi dégg contrat boo xamante ne artistes yi la ñu war a boole pour yóbbu leen Europe man. la fois passée am na ci benn contrat bu buñ ma boole woon Dakar far corona bi yàqu ko mais dama toog ma jàngat ne ma durant ma ma ma duggee ci aar wala ma xàmmee ba léegi mosuma dégg artiste bi dem na tournée. Hmm. te dëkk Kaolack. te dëkk Kaolack. léegi lan mooy. kër gi. lan mooy lan mooy problème bi. après lan la. te et ñu am talent ñoo fi nekk. Hmm. ak a mën ñu am talent ñoo fi nekk. mais jafe-jafe bi nyun ñun ñun ñun ñun ñun ñu animateurs yi présentateurs yi sax dañ ci am problème fan la jafe bi jafe bi nekk dëgg-dëgg musique Kaolack ba léegi mënoo gis à l'avant peut-être public bi am problème ak artistes yi wala artistes yi am problème ak promoteurs yi wala promoteurs ak yi am problème. non cest du public bi am problème ak artiste bi. kon boobu teg nañ ko parce que. jàpp naa ne tey kii Fallou Gallas a ko neex kii keneen a ko neex kii keneen a ko neex. ok c'est-à-dire li may li may waxaat li may ciy dolliwaat foofu mooy. Mhm. xam ne showbiz du guerre. Mhm. da ngeen nag yéen kenn du si si va day siis Fallou Fallou. kii yéen da ngeen xam nga dañuy yéeg ci kaw chaîne. Mhm. bu ñu yéegee ci kaw chaîne kenn ku nekk day fexe convaincre sax ay fans. kenn ku ci nekk day fexe bëggal sa ay fans lu mu laaj nga def ko mais bu ñu wàccee ñun ñoo bokk fu ñuy naanee caay ñun ñoo bokk fu ñuy naanee caay alors kon nañu comprendre que ni ñun ñëpp ñoo far parce que ñun ñëpp Kaolack la ñuy bëgg représenté représenter. nañu nañu ci nañu ci bàyyi xel. Mhm. la question mooy wax nga ko léegi yow sax bon avancé nga ci maanaam artistes yi promoteurs yi. fan la problème bi nekk pour yow si sa analise laataa ñuy dem ci programme bi ndaxte waxtu mi ngi mi ngi dem quand même. non man problème bi nee naa la nee naa la du public bi. Hmm. artistes yi la man sama sama gis-gis foofu la quoi artistes yi la parce que bëgg a jouer bu mu tax tamit ngay ngay ngay ngay yàqu sax ngay nangu yenn yi yenn ñu la koy teg quoi si hmm. sa liggéey. xam nga mooy problème bi mooy faw ñu considérer li ñuy def ne liggéey la si la Youssou Ndour nekkoon. si la dip nekk si la ngaak ak si la keneen ak keneen nekk quoi te ñoom ñëpp si lañ tedd defuñ leneen musique xanaa moo leen ubbil yeneen branche sax ba ñu dugg si leneen ak leneen ak leneen. def naa ko quand j'étais à Guédiawaye di invité benn artiste lu ma wax mhm. moom léegi jubatul. ma gaaw a bi ma koy invité waa ko ñoom yëpp la ñu ànd ak moom. Mhm. ñoom fes fa dell ci buntu si ci buntu si jooy. Ah, parce que dafa gëm li muy mooy li ma la wax sànq ne. nee naa la mooy jaay sa moom laa lay wax ma ne la sénégalais loolu la xam rek. maanaam na la gis nga am fulla ak fayda si li ngay def rek mu soog laa fekk si mais fulla ak fayda bokkul si ñu def concert fayuñ la benn dërëm nga ñëw taxaw di jouer pour bëgg a jouer kese. boo bëggee jouer te li ci gën a li ci gën a graaw. Mhm. yenn artistes yi dañuy contacter promoteur bi ngir jouer. woo ko téléphone ne ko damaa bëgg a jouer. damaa bëgg a ci programme bi xam nga loolu benn artiste bu ko defee. yàqal na cinq artistes yëgu ko parce que dafay jàpp ne promoteur bi day jàpp ne artistes yëpp naa leen déglu dinañ ma woo nee naa la li ma fi joué li may joué fii barewul mhm. parce que jàpp naa ne. gars yi nag nee da ngaa ah, xam nga tey jii nii rek. waaw xam nga tey. Hmm. boo fowee li nga yor. nit ñi dañu ànd ak yow foo la foo foo foowee la ko. Mm-hmm. waaw du du man wallaahi azim ñi may fréquenté xam nañ ne mën nañoo nekk ak man nit laa nag. Mm-hmm. mën nañoo nekk ak man lu yàgg te duñu gis sama mer mais nag soo fekkee ne da bëgg a jàppee sa bopp or def ma përëm duma ko nangu. waaw ma nangu loolu. duma nangu loolu. Euh, lii muy wax nii. Mm-hmm. lu wér la. xam na sax moom mun na bañ a nekk ci ci ci ci ci musique bu Kaolack bi jaxasoo gaa yi ba xam mais li muy wax nii wax ju wér a wér la man yàlla dogal na politiciens yi nekk Kaolack bëri na ñoo xam ne sax seen kër xam du fa dem. xamoo leen. li ma la wax sànq rek accueillir benn nit. Mm-hmm. dimbali ko euh, moo leen gënal foofu ñu. accueillir xam nañ ci dara est-ce que yéen yéen ngi valoriser yéen ni ngeen def exactement parce que tamit yéen yéen vous préférez comme kii yéen xam nga sànq moom nee na moom bu sañoon événement bu gën a rey Kaolack la koy defee mais peut-être moom mais am na yenn artistes yoo xamante ni ñoom ñu préféré ñoom dem jouer ji feneen dakaar wala Mbour ñoom ñoo leen di gënal ñu jouer fii benn yéen li ngeen nekk da yéen man je pense que yéen a ko gën a mën a valoriser mu am valeur boo xamante ni yéen yéen a ko koy def. Mhm. parce que tey li nga nekk mën naa ne soo ko gëmul joxoo ko importance bi nga xamante ni moom la soxla est-ce que ñun tamit ñun dinañ leen gëmle li ngeen nekk di leen jox importance boobu alors que yéen yéen vous n'êtes même pas capable ngeen li ngeen nekk ngeen gëm ko jox ko importance xam ne yéen lii ngeen di def nii comme ni ko kii waxee liggéey la am nga fu ngeen bëgg a yegg. waaw dama ci dama ci doon waxtaan ak papa benn jour. Mhm. d'accord. concert bi suis def bi un an ci musique mhm. dama ko def de dama dem ba am habitude boobu sama koñ concert bu mag bi nga xamante ne ni ne lay joué mu année bi mhm. sama diggu koñ la koy koñ ok chaque année chaque année je te la ci dafa dama koy mhm. recevoir benn xaalisu politicien man may liggéey at mi di dajale liggéey di dajale te dama ciy dépensé euh, dama des fois ay un million et quelques. ci sama ay moyens lenn rek laa ko defee mhm. mooy képp koo xam ne la nga dëkk may daggal ticket di ma seetaan soirée su publier vidéo nga aimé commenté nga aimé commenter. Mhm. loolu laa la bëgg fay. ndax ma def mm. concert boo quand même. indi son indi lumière.

nga indi ko sa diggu koñ def concert gratuit man kay li may sikk sikk di sopp yëpp mosuma dégg fàllu mu Pape Demba bi tey wala fàllu mu Rahma wala fàllu mu Mariama Sarr ah. loolu dégg gu ma seede la quoi. gaa yi nag aay nañ ma loolu incha xam naa concert décembre non man man taful ci gaa yi ñu jox la si xaalis hmm? leer naa di nga tafu wala mu yóbbu la ci <laughs> gaawal yow ci laaj. léegi waaw Kassa man li ma li ma ma leen di laaj moom Papa Melo yëpp laa koy boolee comme artiste Kaolack yi ni ñuy dundee xeexante bi seen biir yàqante bi seen biir waxante lu ñaaw alante bi. nan ngeen koy dundee loolu noonu. man de personnellement aw ma problème yow bokkoo si ak benn artiste kaw la quoi wax dëgg yàlla eh. man damay su ma organisé sax ñoom ñëppee ñëw. Hmm. ñoom yàgg nañ ma yàggul fekk si nañ ma sali yàggul dara le kii bi passé le quatre bi passé quoi. ok léegi yow Fall eh, du ma ah, du ma xeex bon. mosoo yi. waaw. des fois nga kàll ci woy. waaw kàll yu gën loolu mënul ñàkk. kan nga mos a kàll. loolu <laughs> non non kàll kenn loolu mënul ñàkk xam nga. Uh-huh. tey jii nii yàlla moo dogal ñun ñëpp ay xale lañ. ok te xale faaw muy def yëfi xale. champ chaud. day tàng. Euh, léegi des fois ñu tase fenn mais man communication dama ko ragal. ok dama ko dama ko ragal. tey lii problème bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mun nga xam ne mënuloo toog di ko di ko wax ci télé. Mm-hmm. alors nit ñi dañ lay mere te xamuñ ne ci dëgg lañ lay mere. léegi waa doon leen bokk gis-gis tam ñu mere la. c'est ça problème euh, bon ñuy defante ñuy defante kaw rek noonu ñu jàpp naa ne ñoom loolu moom ñoom la concerné. très bien eh li ma li ma li may li may mujjee wax rek mu leer mooy. ñun mm-hmm. ñëpp ñoo bokk li ñuy def. te bu ñu bëgg doon staru kawlak rek. Mm-hmm. waa man en personne man. Je dama bëgg yobbu musique bi international. yow mi il azim ak am fit euh, <laughs> bien sûr. c'est-à-dire limay veux wax ni. dafa comprendre xam nga lan motax ma que tabaski ben son mbalax deful un mois ak quinze août ma wat benen son parce que dama bëgg que je que ni li mu ngi fi bi mu ngi fi li liñu ci son chaque jour si comme lu ma ko waxee gaa yi chaque jour def nañ fa loo xamante ne ni tey wallaahi azim télé yi nekk Kaolack ak rajo yëpp mënoon naa leen a jox kenn ku nekk benn son te li ñu def lu jeex. kon de bari na. parce que la nga ca woy tamit yaatu xëy di liggéey rek. ñu ci benn waaw dañuy <coughs> ci ci yi génnagul. Ah. waaw am na boo xam ne dama ne. yaay sama code phare bi leeral sama yoon. aduna du neex ba ma bayyi sa yoon yow xam nga bu baax fi ma toll ci yow naa ñu nga xëy fàtte li nga waxoo eh, eh, eh, am connectivité loolu am euh, lu mu wax ci bi wees ak Leila events. mi ngi ñuy seetaan donc dégg na lu donc. Euh, loolu tam lu nu wara a bayyi xel la promouvoir artiste yi. moom am solo lay def dooleel voilà. Layla lu am solo lay def. duma mm-hmm. ko duma ko ñaka wax ndax bañ keneen mer. ay wa allez-y. lu am solo lay def euh, man duma ma yëg-yëg lu dul Dakar lamay fekk si ñu woo ma téléphone ne ma Layla nee na. Mm-hmm. sa confirmation la soxla. pour nga bok ci programme bi. waaw nga ne ko d'accord wol sama manager mu woo sa manager sa manager déggante gi ngeen waxtaan après mu joxe sa confirmation. mais wallahi azim lim lay jox ci xaalis du bokk ak sax du la jouer loo comme si dama ben jour dañu tok di waxtan mu ne ma sen problème jeexna na. Layla ne ma sen problème jeexna tak mom ci Layla ci jëm boppam. wallahi azim ne ma artiste dotul sonnati Kaolack te ma nekk. xaaral ma jéem ko continue ne artiste dotul sonn Kaolack tama nek fi ne xam nga lutax manako lan motax mu ne ma dama gis ni promoteur yi fi daan nek dañ daan def nangam ak nangam. man du ma def loolu dama lay wan ne la yow yow laay gën a valoriser waaw parce que xam nga playback boo koy joué dañuy toog. Mhm. ne artistes yi ñooy mujj yi ñooy mujj. moom dalay day boolee jeune talent yi Kaolack yi ci ñuy mujj ngir public bi mën leen a gis. jox leen bàyyi leen xel. Mhm, très bien parce que Kaolack dañuy def ay son yoo xamante son yu am solo la ku ko dégg da xam ne son bi nii kii VN ci bind na ko am na qualité son bu baax. Mhm.

tout est sur mesure tout est paramétré bien sûr même millimétré mënu ma xawa si wolof parce que kaw la gaay dañu mëna way bari na xalé yu mëna way ñofi nek mais ñu ngi ñu ngi waajal euh, samedi euh, premier octobre mhm. waxtaan nañ ci carrière bi waxtaan nañ ci ñom ñaar kenn ku ci ne naka la def bu dugg ci musique lan moko motiver donc fay bax ñun tam ñu concocter li nga xamne mom moy suñu artiste jëm leen promouvoir au devant de la scène ñun am nañ ci cieur animateur yi kaw la so leen paré ngeen wax mëna ci ñom ab du ñu teg boo yu nekk Kaolack na bu mën na ma seede mais man dama leen di teg n'est-ce pas. Ah, yow moom da leen di teg. ah dama leen di teg de damay mm. teg galas damay teg Pape Melo fa ma ne sa beneen wàll nga di bay sama waar donc Pape Melo ñu ngi waajal samedi premier octobre. Mm-hmm. lan moo tax nga teg initiative bi yaa ngi ko war a defee Sokone village hôtel Kayma. Mm-hmm. c'est bien ça. le Kayma loolu si jublu. man ak Fallou la ah. mooy Fap waxal sa waxal sa wax rek quoi bu ci dugal <laughs> Fap Fap yi mer yàlla ñu problème moom daa gaaw événement la comme yeneen événement yi ñuy def yi ñu def Surfer Paradise Almadies def ko Saly deux fois yu tegle moom motul sax ñaari weer maanaam ci benn weer bi lañ def ñaari événement mhm. Saly dañ ko def mu neex gars yi laajaat ko ñu defaat ko loolu la ñu indi suñu dëkk tamit pour bégal leen jox leen tamit si jox leen seen wàll si xew mi ne leen yéen seen doom la kenn waru leen si ëppale mhm. buñ ko jëlee ñoo ko moom buñ ko jëlul ñoom ñoo ko moom. buñ ñëwee seen événement la buñ ñëwul seen événement la en tout cas ñun def nañ suñu suñu wàll béy nañ suñu wàll jox nañ leen seen wàll tamit quoi. Mm-hmm. voilà événement bi yendu show ak piscine la hôtel la Kayma sa kii. mu turiti Sokone Sokone mm-hmm. man ak sama bro Fallou ñoo fay nekk ak yeneen artistes Kaolack waa waa Kaolack ñoo fay ñëw. Mm-hmm. xam naa ak quelques yoo xam ne peut-être Saly la ñuy jógee. ñëw ànd ak ñun def événement bi quoi. kan lañ ci mën a xaar ci programme bi laata fal du ñu wax déroulement bi nu mun a a tëddee. comme artiste wala. waaw artiste way mm, dina am Ouza Fala junior dina ñëw junior bu kawoon euh, ak yeneen ah, ak yeneen artistes yu nekk fii yëpp. lan lu bees nga nga nar a génne jour boobu style créativité innovation lu ñuy xaar. lépp li bees si lépp si côté bépp. côté côté côté musique côté mélodie côté lépp quoi. papa dafa am fit quoi mu loo wax mu ne lépp. <laughs> ci lépp lépp. léegi ci ci ci ci musique. am na lu bees lu Papa Melo def sali war ko andiwaat fii wala am na changement bu ci am ci diggante bi. nga ne ci musique. ci musique bi. Mhm. lanu defoon sali la ñuy répété wala am na lu ñu dencal waa kaw la non chaque jour day gën a neex. yow boo xoolee chaque fois sax day gën a neex lay wax euh, parce que événement bu njëkk bi. ak bu mujj bi bokkul sari bokkul ba léegi ak bi ñu defoon Surf Paradise Almadi mhm. bi mooy daaw bi dañoo ñëw kër maam et et pourquoi le choix de kii ah pourquoi le choix de Fallou waaw ah, Fallou ñaar nga gis fi Chifa mhm. gis fi yeneen artistes yi mhm. ñëw porter ce choix si Fallou gis si moom non firiwul ne jaay nag quoi bu ñu laajee jëw mën nañ ko mën mën nañ xëy suba maanaam Fallou Fallou ku ñu respecté la mën lu muy def la ku xam li mu bëgg la comme yeneen artiste yi comme Sifa ak keneen ak keneen ah man amu problème ak benn artiste. Mhm. mun naa xëy ba def son ak Sifa. mais pourquoi son choix. waaw ah, si moom lañ doon la yàlla dogal. moom lañu xam moom lañu ñu gën a xam ñun. moom lañu ñu gën a miin. moom la gën a xam tu vois dàq woy si booy waaw dafa mën a woy wax ma moo dàq woy mais dafa mën a woy <laughs> dafa mën a woy dafa mën a woy suba gaay wote woote naan booy dama bëgg ñoo wax de nga ni Fallou moo dàq woy kaw la dafa mën a woy la wax Babacar Sarr day dugal pourtant li muy wax deug la man artiste kaw rek ñi nga xamanteni ñoy def musique man suma leen deglu sama yaram da fay daw hmm. ndax li nga li ñi wax dang koy hmm. deg bu baax te seen voix dafa leer xalé hmm. yi dañoo mën a très bien mhm. fallu eh, dugg nga ci events bi eh, peut-être lu ñëk la wala ak lan moo la boole ak en collabo ak Papa Melo waaw liggéey liggéey moñu ñu boole parce que ñaar ñu ñoo xamante ne nii ku ci nekk yaa ngi góor góorlu ci côté bi nga nekk euh, su ngeen dajee pour ngeen liggéey dafay yomb waaw pour ngeen liggéey dafay yomb euh, te ni mu koy waxee ci ñun loolu moo nekk ci moom papa am na talent trop. Mm-hmm. voilà am na man tey jii su ma yoroon alal su ma yoroon alal mun naa arrière musique arrière man génn mais jàppale ñu nekk ci ci ci bi. Mm-hmm. xam naa ne su ma ko defee man sama bopp laa ko defal. très bien ba dafa dafa bëri ñu am talent. dafa bëri ñu am talent mais dañoo dem ba dañuy jaawale ñi amul talent ak ñi am talent. Hmm. loolu tubaab naa les ténors bi font beaucoup de bruit. Hmm. Ah. Hmm. barigo yi nga xam ne def na nañu dara. boo leen di pousse du ñu yëngatu. ñu waaye xob bi moom. mais li ñuy wax rek kër ah. mooy li ñuy waxaat si événement bi événement wu Kaolack la ñun na autorité yëpp ñëw na ñëpp jënd seen ticket jënd jëndal seeni nit ay ticket. parce que ñun amuñ lu dul Kaolack tamit ah quoi te ñoom ñu ngi fii ñoom si loolu rek la ñu mën a jàppale. Mhm. te pare nañ pour job ak ñëpp tamit képp ku ñu woo si loo xam ne nii mm, liggéey kese la dinañ liggéey ak yow man déjà man de comment mos naa commencé liggéey ak yenn autorité fii liggéey naa ak ak tey ki fi nekk ki fi yàlla teg tey quoi naa maa ko njëkk a defal son de campagne. Mhm. Mm, te ci gëm-gëm la mooy Serigne Mboup maa ko njëkk a defal son de campagne. liggéey nañ ensemble dem naa jël na may événement yoo xam ne ni joué naa ay yooni yoon événement yoo xam maa ngi doon liggéey ak ak directeur général bu Cœur de Ville Mbaye Ngom maa ngi koy nuyu uh-huh, euh, liggéey nañu ensemble quoi ñun dàquñ kenn ku ñu woo ñu liggéey ak yow na tegu si norme rek tegu si contrat bu leer ñu liggéey ak yow quoi uh-huh. événement métti ko eh, njar nag bu tamit mm-hmm. dañ ko teg ci ci norme bu bu bu lii nii. Mhm. dañuy fay cachet parfois dee ko njar nag parfois. des fois nga njar ko des fois gars yi si du am xaalis mais njar sax mais njar sax njar mi ngay wax sax pour nga am ko faw nga génnee xaalis. Ah, mais njar boobu sax njar boobu. Hmm. ñu bëgg ñu bëgg ñu leen koy defal. Hmm. pourquoi pas du ñu bu ñuy jëlee artiste feneen. Hmm. du ñu bëgg mu njaral leen ko. Ah. léegi seen artiste la ñuy bëgg moom mu njaral leen ko mu oyof quoi après keneen. teg et pourtant suñuy jarbaat ñooy paas. Mhm. suñuy rakk ñooy paas. waaw suñuy suñuy su suñuy mag ñooy paas. suñuy fan sax. après kenn ñëw jël suñu xaalis yóbbu ko. li ma gën a li ma gën a déranger li ma gën a déranger mooy dañu lay jéem a sous-estimer ci kanamu artiste boobu. yëkkati ko non li ngeen di dund ñun dèjà tey booy bëgg man mun naa ne booy booy bëgg nañ ñu quoi. tey suñuy mun naa ne suñuy mag suñuy ndax parce que Papa Melo tey bu defee événement fii tey chaque sama chaque événement fii nii minibus fii lay taxaw kër de ville. booy ñoo koy fay ñooy def lépp minibus climatisé la ñuy jël fekk si ma Almadies wala fekk si ma def lépp. ci biir quoi yow xam nga si dara. Ah te maanaam seen propre moyen la ñoom ñooy dem liggéey pour def loolu pour fekk si Papa Melo. Mhm. tey bu ci autorité yi jàppoon tuuti rek waxuma la minibus mais tey. même bu fekkee dagg ay ay billets d'avion dem fekk si. Fallou a xaar ci def. waaw yu doy waar incha allah. avec l'arrivée de Fallou géej nañ ko gis ci scène musicale kaolackoise bi Fallou gars yi di laaj ci lan la nekk. on se retrouve le samedi premier octobre loo nar a andi lu bees. waaw ñu def ba mu neex rek parce que ñun loolu lañu ñu woy ba mu neex ba nit ñi kontaan ba bu ëllëgee bu ñu woote waatee feneen mbir mu mel noonu. Mm-hmm. nit ñi dinañ sawar a ñëw. ñu dañuy bëgg sax bu ñu defee soirée bu nit baal see. Mm-hmm. bu déggaatee ñu ñu ngi def soirée rek kenn du ko wax ne ko ndax da dem. Mm-hmm. waaw loolu mooy suñu bëgg-bëgg ma ci ma ci ma ci wax comme ni mu ko waxee ñu ciy woo Kaolack ñépp di leen invité bëgguñu ñëw euh, dooleel seeni seeni seeni artistes. Euh, jàppale leen. parce que jàppale Papa Melo mooy jàppale Fallou mooy jàppale keneen ak keneen ak keneen ak keneen ku mu mën a doon. préparé ngeen benn diw yéen ñaar. non loolu mënul ñàkk. incha allah. boobu la ñuy tëjee émission bi. loolu question piège la non. <laughs> yal dinañ ko def incha allah dinañ ko def. dinañ ko def de di ci kanam tuuti dinañ ci ñëw. mais Fallou. Ben question quand même mom sama xalaatu bop la. ok suis euh, Kébé lo lo ak hmm. waaw Kébé. Ah, ok c'est ça Sec. merci beaucoup dañu ben secteur buñu dëkk. ok dañu secteur golf moment après souvent ñu jaar fa waxtaan ci parce que artistes yëpp suñuy waxtaan rek ci showbiz la ñuy waxtaan. jàpp naa ne sekkuñu leneen en fait. après nag ma xa depuis loolu gisante wuñ benn temps moment yi mu xamanteeg euh, sama benn jigéen bu ne ci staffam. Mhm. après loolu tax ñu ñu ñu kii ñëw na fi événement sax te dew ma. ah parce que waaw. Mhm. am na am na lu nekkoon ci biir. lan lan la woon lan la woon catégorie ah donc ay kii rek ay kii rek. xam nga amoon na lenn quand non non cest ñoo bokk gem bi nag expliqué rek. cest à damay dama xam nga lu may dawal. Hmm. xam nga tey ji nii su ma jékki woon jekki invité wuñ ñu ci émission bi ma ñëw taxaw moo hmm. defoon ndax image bi danañ ko changé teg leneen na waxtaan ak fàll mii lan moo tax mu ñëw ak ku la invité. absolument voilà c'est ça loolu dafa dafa dafa am solo xam hmm. nga man yàlla dafa ma natt ci woy dama ko bëgg su may defal nit vidéo anniversaire damay kontaan. léegi yow Fallou foofu dama la fay dagg maanaam yow dañ laa indi ci plateau bi fii pour laaj la yow ngay tontu <laughs> mais mënuñ la di laaj ngay fat ngay teg ay code ci sa suñuy question loolu mënul nekk da ngay tontu mu leer. ñii seetaan xam liñ bëgg a xam tooñkat la bu ko faa ah, kay continuer waaw ñii seetaan li ñu xam a xam ñu ngi koy xam <laughs> xanaa xamoo gis nga. sa digganteeg Mandiaye Seck lu ci nekk lu tax mu ñëw Kaolack te yow demoo. man loolu loolu bëgg naa nga xam. Mandiaye Seck sama grand la. damaa sob rek. Mandiaye sama grand la. wallaahi tooñ rek. salaamaaleykum <laughs> lay tooñ. man Ndiaye sama grand la sama kilifa la ci aar voilà sama kilifa la ci aar. très lu baax rek lañu ñu sekk man ak. sa relation ak Chifa mi ngi ratax. lépp a ngi naa mi ngi nooy comme. Alem lépp a ngi nice. ah ñëpp. Kaolack moom awma ma fi concurrent fii nii Kaolack. waaw aw ma fi concurrent. kon doo ci moromu doo moromu. non non wax waxewu ma sax foofu. ah ok waxewu ma foofu mais. fay waxee defu ma leen defu ma leen concurrent. samay frère laa leen def sama ay frère laa leen def exemple damay def son mu nice ma jox ko ñi ko war a déglu ñu déglu. ko mais loolu waxu artiste la de. Mhm. ah loolu waxu artiste la de. Ah ah waxu artiste la après boo ko ah. jëlee ñu déglu ko. wa mais li mënoo kon defee nii nangam ak nangam parce que projet bi prémix la jot projet bi mu ngi studio ñu d'accord inshallah incha allah bu ñu dinañ ko defarewaat. papa kan mo lay coacher ci musique. li baaxul de lii nga wara def dé li war nañ ko ki yadé kan mo lay coacher ci musique. suñu équipe rek Papa Melo mom amna une très grande équipe bu nek sama ginnaaw boo xam ñu job ensemble ma ngi am King bi yaa maa nuyu de passage. waaye bu dof. Mm, Alpha Malang Kuruma jàppaloo si jàpp jànko maa nuyu mu ngi dëkk fii Bongre ak yenen yenen yenen gars ak ingénieur yi ñuy joobal. waaw ah mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ingénieurs yi ñuy joobal ñun buñ défé son ba pare ñëppay ñëw déglu. xol ndax mu ngi joxe mélodie mom day am. mélodie mom day am quoi peut-être. Euh, Papa Melo ay waxam neexul comprendre. lu tax loolu souvent les gens se posent les questions looy tontu ci loolu. sama wax comme. sa wax des fois sa musique voilà sa musique day xoot mbind mi. waaw. qu'est-ce qui fait la particularité de Papa Melo sur ce point. Ah, papa Mélodé maanaam ki ma doon li ma nàmp rek lay gàll quoi eh, moom comme ni nag di goxee xar di ko goxee man xam naa li ma lekk laay goxi mhm. peut-être nag mm, ci ni bokkuñ tamit quoi mhm. ah, kenn ku ne mais li ma nàmp si mbedd Kabatoki yi ak Kaolack daal si loolu lay def samay texte ticket yi ko bëgg a am fan ngay dem ak ñaata la ak ku bëgg a dem ci yendu sow piscine bi ticket yi ku ñëw KLTV sa am ko <laughs> instant bi ku ñëw KLTV am <laughs>

mooy bii. waaw mhm. caméraman yi yéen doon ko laal ay trois mille. sonn si ñu may xool. njar ko njar ko. moom Fallou ñoo gën a bëgg xaalis ci artistes yi kaw la. beneen bi bii junni la junni waaw nga xaalis donc ah, ku ko bañ yéen moo tax ubbi télé bi. xam li. <laughs> da jël benn téye. vous dañuy liggéey. Euh, pour numéro de téléphone réservation yi ak fa faut expliquer am. Hmm, réservation événement samedi prochain bi. Uh-huh. mun vous ngi y cas, 346 95 18. bu yaay mbour mën mbuur mun nga boo wootee Kaolack king bi ya ngay jot. king bi ya bo wote mbour sali ji foofu yëpp amna ko fa nek suñu ben représentant mu ngi tuddu ABD. Mhm. Aline Badara Diop. mun nga ko wo ci 77 054 24 47. Mhm. bo nekkee Dakar mën nga wo Abdou Samb jot ko ci 78 451 18 11. waa Sokone gérant hôtel bi lañuy wo direct quoi. directement mo ngi yor ci jëm ak yëpp mën nga ko wo ci 77 068 27 41. Amina Badian, pourquoi pas t'as pas posé la question à Galas mom lu mu la question est la Galas Lo na andi. wax ko sank. Euh, mom xamna dafa dafa dafa il vient juste de nous regarder. voilà il vient juste de nous regarder. Inch'Allah, xel. Inshallah dinañ très bien. waaw buñu buñu de joué dinañ toog mberaay. ak wolof moom dafa xóot loolu moom ñu la ciy jëw wàññil wolof yi. ay doomu olof ay doomu olof lañ. xale dangay ngay wax xale luy mberaay. <laughs> mberaay nag sikk xam nga. mooy lan li ñu li ñu organisé. waaw. Euh, sangu piscine la. Ah, ok coob la. toog bëggee la waxtaan. mooy tey jii nii ki sangu ba sonn. lekk ba suur toog. nga jàkkaarloo moom di ko woyal. oh loolu buur yi buur yi buur yi lañ ko daan defal. Mm-hmm. mais dañoo bëgg Kaolack découvrir loo xamante ne ni daawu fi am. très bien. voilà c'est noonu noonu lu demee ne uh-huh. ki ki ki posé question boobu ne ko bu ñëwee danañ def mbéeraay. très bien léegi léegi ñoom. lan moo tax yéen ngeen préféré def yendu ak fi réew mi toll ak xale yeeg. ak di ci dundee jamono ji ngeen préféré def yendu def sax bàyyi ba doon ko stress bi bari ci réew mi dem leen bëggee <laughs> lan la xale yi di dundee comme réew mi ni mu tojee rek ngeen préféré def seen i yendu sangu piscine affaire yooyu noonu dox ngeen préféré xëy soo ba ngoon def ko yendu xale yi ñëpp pëccëxoo ci biir waaw moo ba nga ne xale yi xale yendu la gën a mën a def no hmm. bien non ay jamono sax sa yaay dala daan wax ne la demal yendu ji sa kër yendu waaw yendu moom yendu yi bokkul de ñu lay woyal ak ndigal yendu piscine la yendu ji sa kër maam ak yendu ji fee ñu lay woyal boo yendu jee sa kër maam. Ah. Euh, dañuy boo accès rek dañ lay sumil yére bi nga soloon <laughs> solol la yére boo yendoo. Mm-hmm. bu ko defee nag nga bu oyof nag. waaw demal bu oyof. donc ñu ngi ciy xaar ay artistes auteurs compositeurs qui sont grandi à eh, Kaolack. ñi ngeen a dogal. <laughs> ñi tooñ ñi entrée bi VIP bi vingt cinq mille la ak euh, entrée simple bi dina nekk cent mille francs donc mën nañu dem gaaw euh, réserver ci ticket yi boo leen bëggee bokk ci événement bi mu ngi nekk samedi benn fan ci weerum octobre atum deux mille vingt deux donc pour yéen la askanu Kaolack ak ñi nga xam ne ñu ngi regarder di ñu seetaan à travers.

qui galas la en très chic très glam avec Papa Melo le style créativité l'innovation ci donc tamit mën ngeen euh, ci 77 068 27 41 donc réservation yi dorénavant euh, mën ngeen daw la donc ñu ngi leen di merci beaucoup euh, ci bi nga invitation waaw maa ngi maa ngi maa ngi remercier ñëpp di remercier ñi nga ay ay laaj doy waar lañ ñuy laaj. nabu ak ak ah. ummi uh, waaw di bëggee ñëpp di bëggee di leen wax ne leen rek bu kàddu yi lépp loo xamante ne nii am na ko mu déranger rek ñu ngi jéggalu mhm. dañoo bëgg rek lépp baax bëgg may nuyu sama staff bi yëpp. Mhm. di nuyu sama manager ah Birane ñëpp maa ngi leen di bëggee di di di kontaan ci ci ci uh, King. jàpp waa King Mia jàpp bi mu ciy jàpp waa di gërëm sama grand dumbul banaana euh, di gërëm gaa yëpp di mm-hmm. gërëm Kaolack gépp ñoom musaa Jama ñëpp maa ngi leen di gërëm waaw di leen ñaanal euh, ku ci nekk li nga bëgg rek yàlla defal la loolu waa di sant sama yaay bu baax di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér mm-hmm. très bien ñu ngi gërëm bu baax fàllu artiste auteur compositeur jox na leen rendez-vous samedi premier octobre ci yendu show bi nga xam ne que mi ngi amee ci Île Saloum ci Sokone merci beaucoup Papa Melo ñu ngi lay gërëm. Mm-hmm. merci beaucoup DJ Babs di remercier waa KLTV ci invitation bi. Mm-hmm. ñun dañuy neex di def émission fi ci Kaolack. lu si melni si mel ni ay KLTV fii. Mm-hmm. nga xam ne suñu dëkk la dañuy gëna a firi pour wax. dañuy gën a firi tamit pour pour lal bassin yi quoi. Mhm. di nuyu Nabou Sa borom question yi <laughs> ak Oumy <laughs> Oumy bu baax ak Nabou bu féroce laa leen. waaw ah dégg <laughs> merci di leen di leen di di nuyu Kaolack quoi yëpp di leen di leen woo tamit ci bés bi di leen di gërëm suñu tim Papa Mbello Kaolack. surtout team Papa Mbello Saly team Papa Mbello mhm. Dakar ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di leen ziar di leen wax ne ñu ngi leen di xaar incha allah si. ci suñu événement bi ci kanam tuuti yéen ñuy defal li ngeen di waajal. Euh, mooy dio bi pour ñun du ñu tàggoo quoi bu ñu paree rek ñun dañuy terminer toog 30 secondes yoo xam ne dañ leen di déglu ñoom ñaan ñu def benn dualité bu extraordinaire ñu ngi lay gërëm Oumy Sarr. Babacar maa ngi lay gërëm di gërëm sama artistes si Fallou ak Papa Melo. di leen wax ne kontaan naa bu baax partage plateau bi ak yéen. di leen wax tamit que ne du courage li ngeen nekk su ngeen ci gëmee incha allah yàlla dina leen ci jàppale bu a baax. merci ñu ngi lay gërëm Nabou Dia. Euh, dig daje altine waaw Babacar amoon naa mbégte euh, bokk ak plateau sama xarit yi yaa ngi nga xamante ne li ñu wax tey lépp leer en plus papa Melo moom bëgg na xaalis mais bëgg naa ko ci noonu dafa gëm boppam. Mm-hmm. Fallou ainsi de suite yow tamit maa ngi lay encouragé di leen wax ne bu leen mus a découragé dina baax incha allah. Mm-hmm. yoon boo gis toq-toq bi moo gën yuret bi. Mm-hmm. di def par ndànk-ndànk ba yàlla sotti lépp moo gën. ay ndaw ngeen tamit bu ñu ciyee février tamit incha allah. Mm, le 25 février. Eh, dafa am festival bu war a am Gambia. Mhm. Euh, Papa Melo mooy doon artiste buy représenté Sénégal incha allah festival international la. ok Papa Melo doomu Kaolack mooy représenté Sénégal ngeen waaj ko ñun ñoom ñu ànd Gambia incha allah. Uh, and Gambia people. Mhm. Uh, kon uh, février la. 25 février 2023. 2023 festival wala tudd quoi. incha allah yan ci yàlla may ndam yan ci yàlla yóbbu ak jàmm en attendant ngay dem. ñun samedi dañu def suñuy pexe ak suñuy bu ak Dakar mm-hmm. ba ñu la war a recevoir recevoir la waaye tamit invité na def fii ñu ne ak faneen foo nga xam ne que ñu ngi fay bàyyi suñu waar mm-hmm. donc ñu ngi lay gërëm merci beaucoup Nabouja terminal foofu waaw sa nuyoo moom du jeex ay nopp garmi laa yor sama ñi may déglu tamit nopp garmi lañ yor lu baax ah, rek lañ ci bëgg a dégg aywa kon demal moor bi dam sama tëyër bu baax bi nga xam ne moo yor làmba couture euh, génn ma fu nooy fii maa ngi koy gërëm di ko sant Babacar di la jox dig daje ba ba altine wala ba lundi. waaw altine ak jàmm incha ñu gërëm suñuy partenaire bokk na ci résidence Mame Diarra gërëm yi tamit station SDPP euh, gërëm euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Saloum portable ñu ngi leen gërëm ak Omar Gueye euh, gërëm ñi nga xam ne tamit résidence Mame Diarra wax naa leen ko léegi ñoom ñu ngi nekkee ci Casenat en proximité de la gendarmerie lépp loolu leen soxla jëm ci bërëbu dalukaay dalluwaay boo xam ni que bëgg ngeen dalal seeni i gan wala tamit nga ñëw Kaolack bëgg foo dalloo mën nga dem gaaw ci résidence Mame Diarra station SDBP en proximité de Kanda benn bërëb la boo xamee ni que tamit en dehors de cela station la boo xam ne bu mucc ayib la bii ngeen di gis nii moom mooy résidence Mame Diarra donc mën ngeen daw euh, am ay bërëb chambre climatisée ah lépp loo leen soxla ci oto mun ngeen fa dem Saloum portable ñu ngi gërëm Oumar Gueye numéro de téléphone yaa ngi noonu ñun nag du ñu dugalante ay téléphone kii jël bu yàqu naan dafa xoos yooyu non non ñun original lañ lay jaay jox la garantie mu ngi ci marché centrale bu Kaolack Kaniwo déggoon bu noppee tamit ñu gërëm station SDPP bu fekkee baax na mën nga ñu ko jox mu ngi ci Kanda lu sorewul dara ak kawoon bërëb la boo xam ne am na dalluwaay ah da ngay toog ci kaw team Kaolack di gis ay pizza shawarma pour célibataires yi fast food am na fa. waye tamit lepp loo leen soxla ci walum euh, jekki-jekkal sen voiture ñu gasoilé ko raxas ko bom set station la bo xam amna lepp na lépp soxla jëm ci li nga xam mom moy mooy euh, Kaolack Omay Evans ñu ngi koy gërëm moom tamit bëgg nañ mu dugal loxo ci artistes yi ah. Omay Evans son groupe ñu ngi leen di gërëm bu baax joyotu jooyatuñu son joyotu jooyatuñu lumière joyotu jooyatuñu bâche joyotu jooyatuñu décoration ndax le groupe Omay events nek Kaolack di def liggéey bu am solo gërëm nañ partenaires yi ak ñi bëgg a ñëw te ak saguñu ubbil nañ leen suñuy bunt ñoom itam mun nañu def ni gaañi dama leen di bàyyi ak artistes yi man je vous donne bu leen di incha allah de 10h30 à 12h30 waxtaan ak faram-fàccee lép loo xam ne jëm na ci actualité waaye tamit chaque jeudi dinañu dalal artiste moo xam ci sow biis moo xam ci leneen ak leneen loo xam ne que mu ngi ciy yëngatu. jaa ngeen jëf gars yi ak jàmm Fallou ak euh, Papa à vous ngeen tëjal ñu émission bi loolu la ñu woyal baax na. jam ay wa allez-y ari serel ma lolou après na lay ko yónnee ba yi fay man ñemewuma mali ci sa loxo la tàmm yànd dellu si na fi moso yendu fenn moso fanan al hmm. sama jant so la kuy nit sama yoon xame tu xametu subango

man di su yeewoo saa bu ma yeewoo. damay damay damay damay toog di seetaan. Kaolack TV ngir mu jëm ca kanam kanam. yoon bi guddoon te lëndëm loole xaddi sax na ma ci waye jomb na ma ko ndax sama yaay. oh c'est beau ça oh c'est beau ça merci beaucoup à tout le monde ça a été un plaisir <laughs> de vous servir lundi inshallah allez bonne suite des programmes à vous la régie merci beaucoup jaa <laughs>